lu tax Sénégal moom boo xasee ba xonq boo ñëwee loo wax dëgg la moo xam ngay ab tubaab wala ngay ab naar déedéet bëgg leen a ubbil suñuy buntu ñu ñëw fi jërul ñu du leen daganalal loo xam ne suñu maam xamu ko woon waxuma la suñuy diine yaxfirullahu lana wa lakum cloche de notification bi ngir loolu dana tax rek kenn bokk suñu koy njëkk am kon ñu bàyyi leen ngeen teewlu salaamaaleykum réew dañoo mel ni rek dañoo wëlbatiku nekk ay jën yuy dudd ci géej di lekkante di wannante di toroxalante di suufeelante di wuññiwante ay awra kenn ku nekk loo xamal nit ci lu koy suufeel rek moom ngay jéem a def waaye lépp lu koy yëkkati yow loolu itteewu la loolu nag nekk feebar bu bon bu doy waa arab dañ doon wax ni ustur ayba axiika yasturullahu aybaka yowm yow doomu aadama bi moo xam góor nga wala jigéen nëbbalal sa moroomu jullit ay ayibam ni alquran dafa wax ci jigéen ñi ne inna kaydakunna azim nee na pexem jigéen lu doy waar la lu màgg la fexeel nañ yonent yàlla yusuf fexeel nañ yonent yàlla muusa yonent yépp kenn ku nekk ci ñoom ay nit fexeel nañ la ngir daaneel la mbokk yi alquran day wax ni inna cheytaana lakum aduw fattaxizuhu aduwa nee na seytaane seen noon la na ngeen ko jàppee noon pour ngeen mën a mucc mbokk jullit doomu aadama bu juumee ba def yi fi nit mais jàppal ni nit la def lii fu bàyyi ma ak fu dara jaam toll ci mbaax na nekk wali na nekk xutbu na nekk yonant nit la ci nit ñi te jigéen mën naa daaneel ku nekk bu caay-caay newee ci moom yow mi am loolu jël loolu génne ko ci marché bi siiwal ko ba toroxal borom te muy nit ku baax ku ñu yaakaare ak mbaax nit ku bëgg a defaru di defare mbokk xanaa xamoo ni gawar mooy daanu gawar mooy daanu kon gawar su daanoo dañ koo war a dimbale yonent bi sallallahu alayhi wa nee na bu leen dimbale seytaane ci seen mbokk su ngeen ko siiwalee ci internet bi feeñal ko génne ay jikkoom ba la mu waroon wax ci lu baax mu ragal dootu ko wax la mu waroon a def ci ba lu baax mu ragal dootu ko def xamal ni seytaane moo dugg ko def lool jigéen de dugg di jël ay vidéo waa ji wala di jël ay audiom ay waxam yu bon waxam yu muy nëbb waxu ko kenn xamal ni bésub keroog iblis dafa ta labbus ci ndaw soosu dafa dugg ci moom kon ndaw sa keroog iblis la moom it seytaane mën na ko waaye ka génn vidéo yi moom moo yées mooy wallazi tawalla kibra ki gën a bon ci ñaar ñi ki def lu bon ak kamu ko defal que leen yées mooy ka génn seen vidéo di ko siiwal na xaar bisam mi ngi ñëw mbokk yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne man satara musliman fi dunya satarahu llahu fi dunya wal axira rawahu muslim mbokk kii nga yàq du moom rek nga yàq waaye li ci ginnaawam xoolal la cay yàqu xoola nit ñi nañu koy àttee xool ko dana dugg ci néegam jooy te du gis ku ko noppil kan moo ko def benn doomu aadama bu ñuy wax jigéen koo xam ni ma ni man mucc ma ci yow mi may déglu muccoo ci yow mi siiwal vidéo yi muccoo ci yéen ñi ko seetaan ku nekk am noo ko gisee mucculoo ci kon képp ku sutural jullit ma ni ku nekk ci ñun amal nañ la ay mbir yooyu bañ mu feeñ waaye yow mi loolu tege ci sa loxo amal maturité nga nëbbu ko ndax yàlla nëbbal la mbokk yi seytaane mi nga xam ne dafay daaneel te ki mu njëkk a daaneel mooy suñu maam aadama ak hawa moom la njëkk a day daaneel borom bi ne fa azallahuma alcheytaanu anha fa axrajahuma mimma kaana fii borom bi nee na cheytaana tarxisloo na abina aadam tarxisloo umm naa hawa ba génne leen ci àjjana dañu nekkoon mooy lu baax lañu nekkoon bëgg ko véhiculer génn na leen te mbokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na maa taraktu baadi fitnatan hiya adarru ala rijaali min annisa nee na bàyyiwuma sama ginnaaw fitna boo xam ni moo gën a mën a lor ci jigéen noonu yàlla yi bu ñu bëggee toroxal nit yàlla ci jigéen la ñuy jaar noonu diine yi bu ñu bëggee toroxal nitu diine ci di ci jigéen la ñuy jaar noonu islaam yi naka noonu kon mbokk yi nul n'est parfait nit ñi kenn matul yow miy critiqué xoolal ba xam ndax moom fi mu jaar ba lii dal ko yow boo fa jaaroon nu muy demee yow mi toroxal sa mbokku jullit lan mooy sa fay ëllëg xamal ni lépp nga nga bor bu ñaaw bor bu bon nga leble mooy nit ku baax ku nu yaakaare mbaax ku bëgg ab mbaax di jëf ci mbaax nga bëgg yàq mbaax googee yépp ba dara dootul feeñ ma ni arab nee na kamaata diinu tuddaan lépp loo yeble moom ngay fayiku loo ji moom te mbokk mi bu tuubee yàlla day nangu yi seytaane mi nga xam ne dafay daaneel te ki mu njëkk a daaneel mooy suñu maam aadama ak hawa moom la njëkk a day daaneel borom bi ne fa azallahuma alcheytaanu anha fa axrajahuma mimma kaana borom bi nee na cheytaana tarxisloo na abina aadam tarxisloo ummuna hawa ba génne leen ci àjjana dañu nekkoon mooy lu baax lañu nekkoon bëgg ko véhiculer génn na leen ci te mbokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na maa taraktu baadi fitnatan hiya adur ala rijaali min annisa nee na bàyyiwuma sama ginnaaw fitna boo xam ni moo gën a mën a lor góor ci jigéen noonu yàlla yi bu ñu bëggee toroxal nitu yàlla ci jigéen la ñuy jaar noonu diine yi bu ñu bëggee toroxal nitu diine ci di ci jigéen la ñuy jaar noonu islaam yi naka noonu kon mbokk yi nul n'est parfait nit ñi kenn matul yow miy critiquer xoolal ba xam ndax moom fi mu jaar ba lii dal ko yow boo fa jaaroon nu muy demee yow mi toroxal sa mbokku jullit lan mooy sa fay ëllëg xamal ni leb nga nga bor bu ñaaw bor bu bon nga leble mooy nit ku baax ku nu yaakaare mbaax ku bëgg ak mbaax di jëf ci mbaax nga bëgg yàq mbaax googe yépp ba dara dootul feeñ ma ni arab nee na kamaata diinu tuddaan lépp loo yeble moom ngay fayiku loo ji moom ngay góob te mbokk mi bu tuubee yàlla day nangu tuub kenn ci ñun xamul ndax yàlla nangul na ko tuub yaakaar rek lañ ci yàlla na ko ko yàlla defal waaye wallaahi li yàlla xam li mu denc li mu denc man mii di wax ak yow lim ma dencal bari na yow mii di ma déglu lim la dencal bari na kon ragalal yàlla jigéen ñi incha allah dinaa ñëwaat ci ñoom ci beneen bind bii di ñëw wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain